mu ne noonu dama ñu bokk. maa ngi sant ñëpp di leen fii ci Kébémer nag laa koy waxee. Mhm. may sant sëriñ bi nga ñaan ma jëm réew mi. Mhm. defar Touba defar Sénégal defar Kébémer. waaw salaamaaleykum wa ne ndongo daar bu mu ne lii mën naa rëb. Ah, moom laa gëm. moom du nit. dama bëgg jël réew mi pour defar ko. Mhm. ki fi nekk nag am na ñaari mandat. te neewul wii neewul non. maa ngi koy ñaanal bu naan lii mu ànd ak man. mu ne noo te bañ a bokk. maa ngi sant ñëpp di leen gërëm fii ci Kébémer nag laa koy waxee. Mm-hmm. may sant sëriñ bi nga ñaanal ma jël réew mi. Mm-hmm. defar Touba defar Sénégal defar Kébémer. wasalaamaaleykum ne ndongo daar bu mu ne lii mën naa yor. boo xaari jërëjëf ah, man moom laa gëm. moom du nit. dama bëgg élection présidentielle yi di ñëw mm-hmm. bëgg jël réew mi pour defar ko. ki fi nekk nag am na ñaari mandat